asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum président de la république Macky sàll sama président de tous les temps dellu naa di la nuyu mais président ma maire maire bi nag bii yoon dara waralu ko lu dul li fi xew démb li fi xew bi ci guddi ñaaw na torop lan moo ko waral jël ay nit yoo xamante ni askan wi bëgguñu leen fonk ñu leen respecté wu ñu leen nga tegal nga teg leen ci baawu jaaxle yi. ñoo xamante ni chaque jour ñu ngi leen di jiiñ ay sàcc ñoo xamante ni chaque jour ñu ngi leen di jiiñ lépp loo xamante ne ni dafa salte mënuñu gañe fenn seen dëkkandoo ya ñu dendal sax sànni lu ñu leen benn carte ndax lan lu ko waral askan wi bëgguñu leen léegi nag yow lañ fi teg il est temps pale ba dafa jot nag ñu dindi fa yaama neex gi yaama neex gi dañ yaama neex gi dañ koy génnee ci pale bi koo xam ni mënatoo demal nga toog prési jëlal ci prési dama ni nga jël ci booy yu bees yi xale yi nga xamante ni dañoo jàng ba yeey seeni këyit xam nu ñuy gérer koñ xam nu ñuy gérer quartier jël leen ñii nga xamante ni mënatuñu nag nañ ñu may suñu jàmm il est temps nag ñu dem toogi ji xam ni mënatuñu trop c'est trop yaa ma neex gi biir pale dañ koy dindi raxas ko ba mu set wecc ku mun na def ku munul na baax léegi nag ñi nga xamante ni ñoom waxuma la euh, bureau ba ñu voté waaye néeg ba ñu voté sax dañ leen faa gañe il est temps nag ñooñu nag wala ñu ni leen us door génnee leen ci palais ba mag yi man yow laa àndal tey yow laa àndal suba mais damay wax sama xalaat ñi nga fi teg askan wi bëgguñu leen ñoom ñoo gën a xamante ni euh, li li olof naan mag bu jaaxaan di saw euh, tooyaloo kenn sa bopp ngay tooyal am na ñoo xam ne danga leen di xool rek xam ne du ñu dem man yëf yi affaire yi sawaruma ci woon parce que am na ñoo xam ne da nga leen di xool rek xam ne ñii euh, euh, seen waañu kër sax mënuñ mënu du leen votel mais léegi pour lan lii defet yi ñaaw yi pour lan la léegi nag Macky Sall xew mi bu mu la diis woo leen ñoom ñëpp ba ñu toog kenn ku ci nekk nga ne ko yow diw ba mu ne la naam kon mbëtti fay fay fay ba mu ne la naam nga ne ko léegi yow gis nga ni ko yow yow yow yow dix dix dix personnes yu mat rek yow mënoo ma koo indil yow ba mu ne la naam nga ne ko yow yow door kenn par kenn amuñu lay nit ñi bëgguñu leen liggéeyuñu liggéeyuñu koñ boo fi dugg tali yi xoolal tali ndakaaru yi nu mu bonee à tali yu mag yi tali si koñ yi benn baaxu ci loolu est-ce la ko war a liggéey non non maire yaa ko war a liggéey waaye ay maire yoo xam ne nekkeewuñu fi dara lu dul bu leen ma wax loo waaye bëggumaa wax nag prési mer naa torop